ñaan yàlla dañ ñëwoon rek ndokkeel la waaye fàttali la itam ndax seen Cheikh Tidiane si daf ma yónni ni ma demal ma Touba ma dem Touba fekk fa seen yàgg la bi ma añee ba noppi fi ma dalaloon mu ñëw seet si ma keroog mu laaj ma lu bari laaj ma sëñ Moustapha si mii seen taw bàyyi ñaata ak laam ma ni ko sa la mu ni ma sëñ Mansour ñaata at la am ma wax ko ko mu ni ma sëñ Cheikh ñaata at la am ma wax ko ko ma ni ko sëñ Cheikh ak sëñ Mansour ñoo maase ay seexle mu laaj ma sëñ Abdou ñaata at la am ma wax ko mu ni ma man de leen rek laa leen di sant mooy ngeen yokk muñ mu ni ndax ñi ngeen donn ñaar rek lañu fi bay muñ ak sag mu ni ma sag boo xam ne nag yàlla ci dugal loxo mu ni ma ba tax na bu leen ñàkk yaakaar mukk ndax leeru maam yi mu ni ma te ngeen nag coono mu ni ma yàlla du leen teg fitna mu ni ma fitna ki yàlla seetaan moo koy am waaye coono nag yàlla teggi lu ko yonent yi teggi lu ko awliyaaw yi ba tabaarakallaahu bi may dugg léegi maa ngi wax ni kër gi miin naa ko ndax sëñ Moussa Bachir day jékki-jékki rek yónnee ne wax leen sama Malick mu wuy si ma ma ñëw wuy si ko mu wax ak man li muy wax ak man ma dem wax ak sëñ Cheikh fa tabaarakallaahu jox na mu mbubbam ni ma denc ko souvenir sëñ Abdoul Ahad jox na ma mbubbam ni ma denc ko souvenir Cheikh Mourtada keroog ba nuy inauguré mausolée bu maam jaara maag moom ca Poroxaan jox na ma mbubbam ni ma denc ko souvenir tabaarakallahu yooyu yëpp yàlla def mu nekk suñu diggante ñu bokk ndono bokk yaakaar te di ñaan yàlla rek ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam Euh, yenn du diis ndax bu la ko yàlla téyelee dañu wax ni di tegu ci sa bopp day ñëw ba tiim ko rek yàlla téye la ko loo jéem mën ko kon loolu ñu ngi koy séntu ci yow di ko yaakaar ci yow di la ñaanal wér li gën a jafe ci jamono bi <laughs> mooy wér waaye rek yàlla moom tabaarakallahu mën na ko defar jàmmam maam yi itam yi ñu teg ci sa loxo rafetal ko nañu ko bëggee ci biir ak nañu ko bëggee ci biir ndax na tabaarakallah ñu ngi lay eh, ndokkeel ci yoon wi di la masawu coono yi di la dalal jàmm tabaarakallah wala li nga bëgg waay eh, di la jéggalu yi tam wax dëgg yàlla ba nga ñëwee rek ma nga ñëw tabarakallah waaye jëli nañ la bàyyi nga noppalu tuuti moo tax tabarakallah mu nekk di ñëw di la jéggal tabarakallah jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf. ah nga lépp jox nga lépp. waaw na Mbacke jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. dégg nañu bu baax ñu te wax sant yàlla dégg nañu bu baax Mbacke. jërëjëf Mbacke jazakumullah na xayra. jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. yaakaar gën naa dal. jërëjëf Mbacke. nii rek la. wallaay noonu. nii rek la Mbacke wax. wallaay wallaay Mbacke. nii rek la Mbacke wax. yàlla baax na. yàlla baax na Mbacke. waaw waaw kay sëriñ bi jërëjëf. waaw ñu sant i kër bi waaw ñëw nga sa kër mag ku xam ni taarix tuddee diggante Tiwaawan ak xam ne ñëw nga fi nga war a ñëw waaye fekk si bi koo xam ne itam li taxoon na jóg mag ñooña rek moo ko fi bàyyi ba tey mu di leen tàllal loxo lu jiitu ba lii am kon na nga xam ne yow itam ak cër ba nga am tiwaawa te umpale wuñu ko su digg ak sëñ seex te umpale wuñu ko ak njaboot sëñ bi tëyal na la ko su yoon yu rëy na ci noonu lool maa ngi lay sant. jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. yal na yàlla bàyyi la ko ba ci kanam ak kanam lu mu jàppale la barke maam yi tabaarakallaahu bég nañu looy ci taxawaayu njaboot yi ci liggéey bi ñu def fii ah rek mu di suñu leeru maam Cheikhul Khadim tabarakallahu yàlla taas na ci barkeem taas na ci leeram ñi ngi lay ndokkeel di la masawu coono di ñaanal njaboot yi